waa jàngat bi nu bi nu def jàngat bi képp koo xamante ne yaa ngi yëngu ci wàllu école rawatina ñi nga xamante ne ñooy autorité autorité scolaire yi nga xamante ni ñoom ñooy gérer wàllu njàngi mi xam nan jafe-jafe yi xale yi di jànkoonteel ci wàllu pièce d'état civil ndax li nu seetlu mooy xale yi bu ñëwee ba CM2 war a def certificat de fin d'étude élémentaire xale yu bëri war a présenté ci examen boobu dañuy am jafe-jafe jafe-jafe léegi li waral jafe-jafe bi di feeñee foofu mooy dañ jàpp ne xale bi dafa am droit dugg ci école bi sàggante waa juróom bi ko wutalul kayitu kayitu gi waru ko topp ba du jàng moo tax bu nu ñëwee ñun au niveau scolaire li ñuy def mooy respecte ce droit de l'enfant lui permettant d'entrer dans dans l'école mu teel a dugg ci école bi teel a jàng jàngandoo ak ay moroomam léegi nag diir boobu yëpp nag lu ci ëpp dañ naan xaar ba xale bi am def juróom-benn ati classe bu ñëwee bu sem 2 daf fay feeñee maanaam problème état civil nekkul problème école rek mais dafay feeñe lu bari bu xale bi egsee niveau CM2. léegi nag boo leen gisee ñu dajale ñi nga xamante ni ñooy directeuru case des tout petits yi ak directeur yi nga xamante ni seen école dafa am lu ñuy wax classe préscolaire à l'élémentaire cible bi cible bu bu baax la bu am njariñ ndax li ko waral mooy ñoom dañ teel a discuter ak parents yi pour que xale yi bala ñoo egg ci di jàng benn at ñaari at parents yi xam ne ñii war nañ am kayit bu buñ tollee ci def examen duñu am jafe jafe yooyu. Euh, solution bi gën a taxaw mooy nga xamante ne solution bu pratique la parce que ci lël bi euh, partagé nañ fi. li nga xamante ne mooy loi ak yoon yi nga xamante ne moo tënk wàllu état civil te loolu xam ko dafay am solo dafay am solo ci ñi nga xamante ni ñoo yor école yi mais dafay am solo ci ñi nga xamante ni ñooy parent yi ginnaaw bi ñu partagé les partagé poñ yi nga xamante ni yëpp moo tënk mbirum état civil fii ci réew mi dinañ partagé benn plateforme boo xamante ni informatique la boo xamante ni directeur école bi wala directeur case des tout bi moom bu ubbee plateforme bi dina ko wan xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci école am te amuñu kayitu judd bu ko defee loolu boo ko teelee xam dina woo parents yi waxtaan ak ñoom ñu teel a jublu ci nan la ñuy def ba xale yooyu am kayit ndax xale bu am bu juddu déclaré wuñ ko it am na yeneen possibilité yoo xamante ni loi bi euh, indi na ko ngir moom mën ko dabaatal moo xam day def jugement buy wane ni moom juddu woon na waaye amul amul woon këyit bu ko defee ñu mën koo wutal kayit ci teel. am njariñ lël bi dafa am njariñ lool am na njariñ ci def ko ak citoyen yëpp pour ñu xam ndax état civil mooy nit mooy gunge nit ki fi mu juddoo ba fi muy génn àdduna loolu mooy état civil ñu xam kan la kon lël bi dafa am njariñ waaye fi mu gën a amee solo mooy ginnaaw ñun dañuy dabaatal dañuy réparer ñu xool xale yi nga xam ne dañu nekk ci niveau préscolaire ndax préscolaire ñi xale yi fay ñëw mooy ñi am daanaka ñaari at ba juróomi at kon ñooñu bu ñu leen teelee jël en charge sensibiliser seen parent xamal leen seeni waajur xamal leen la na ne bu ñu teelee am kay kayit yi wax dëgg yàlla loolu dina leen teggil dina leen tegg lu bari dina leen teggil ay jafe-jafe yoo xamante ni seeni mag ñi ngi jànkoonteeg jafe-jafe yooyu te dara tegu leen ko lu dul xëy na duma wax sàggante mais ñàkk xam seen waajur ba amuñu kayit yi nga xamante ni moom lañ war a am. ñi ngi sant CDP bu baax a baax nag ndax ku xam département Mbacké xool ni eh, xale yi ñàkk këyit yi ci ñiy inscrire CFEE maanaam pourcentage bi mi ngi wàññeeku bu baax a baax te loolu liggéeyu CDP bi daf ci ci feeñ liggéey boo xamante ni dem na ci ay émissions yu rajo dem na ci ay fora yoo xamante ni organiser nañ ko ak lël yu mel nii yoo xamante ni dañ koo def ak yeneen i cible loolu tax na am na lu luñ ci def waaye ku na xam na ni liggéey bu mel nii boo amee njariñ fépp ci réew mi Mbàkke la gën a amee njariñ ndax population Mbàkke dafa nekk population boo xamante ni yokk gi dafay yokk bu baax a baax a baax a baax a baax te mm, euh, problème bi vraiment nekkoon fi problème boo xamante ni problème problème bu teew la problème bu am la kon liggéey bi CDP def liggéey bu am njariñ la buñ ko toppee nii euh, wëyal di di ko waxtaanee xeeb kenn bañ a bodd kenn képp koo xamante ni jàpp nañ ni yow ci nga bokk ñu ñu ñu boole ci bu buñ ko di wéyal di ko wéyale nii a ah, waajur yi xam lii seen li àqi njaboot gi seen diggante ak ñoom ci wutal leen kayit ci toppatoo leen buñ ko wéyalee nii jàpp nañ ni du yàgg dara ah problème bi day dañuy day dañuy féete dañuy féete ginnaaw ndax lu ci bëri ci li koy waral ñàkk xam rek moom moo koy waral waaye buñ defee sensibilisation bi wut ay ñoo xamante ni ñooy dox ci diggante bi mu mel ni directeur école yi directeur case des tout-petits yi ak jàngalekat yi jàpp na ni balaa yàgg daal incha allah moom mbirum état civil moom dinañu féete ginnaaw. man nag maa ngi tudd Thiendella Fall nekk chef service departemental développement communautaire nekk aussi liñ naa point focal maanaam di coordonner rek euh, kuréel gi nga xam ne nii mooy taxaw. di sàmm ak ak yelleefu ndaw ñi te préfet du département jiite ko acteurs yu bëri bokk ci biir bokk na ci éducation bokk na ci santé sécurité mais aussi service sociaux yi fi nekk comme action sociale ak AEMO bon gannaaw ba ñu seetloo lu bëree bëri dem ci xele yi fii ci département bi lu njëkk a jàngat mooy problème kayit juddu moom am na fi donc ñu ne lii de jot na nag ñu jóg taxaw jéem a xool yan pexe dañuy teg pour saafara mbir moomu ànd ci nag ak secteur yëpp la justice avec le président du tribunal d'instance le coordinateur de la maison de justice ak euh, vraiment bépp acteur boo xam ni yow ca la ngay yëngatu xel am na ca wàll rek yow yaa ngi ci biir kuréel googu su dee wàllu prévention maanaam fagaru ci xale yi kooku secteur éducation ak action sociale ñoo ko gën a kii parce que xale mu ngi gën a amee sécurité ci biir éducation xale bu xëy di dem di jàngi moo xam daara ja la moo xam école ba la kooku moom moom lañ gën a moom moo gën a am protection ne xale bi nga xamante nii mu ngi ci mbedd mi moo tax éducation def ci day jouer rôle bu am solo rôle boobu muy jouer nag moo waral ci suñu plan de travail maanaam li ñu lal mbébét ko war koo liggéey ci wàllu woowu éducation def ci am place bu am solo parce que lenn xale yi ni ñu amee droit ci yeneen facteur yi bi ci jiitu nag droit éducation la droit à l'éducation maanaam yelleef boobu euh, kii de euh, xale da koo am ba tax na nag ci suñu plan d'action bi ñu dugal ci yaa ngi dégg man Cissé ak aussi inspecteur Omar Thiam nga xam ne lépp luy wàllu tout tànk bu ma nee tout tànk nag mooy ñu nekk euh, case des tout petits yi école maternelle jardin daara yeeg yooyu comme que moom moo ko euh, jiite il fallait aussi moom mu ñëw indi xalaatam ci wàllu woowu ak problème yi mu jànkonteel ci secteur am moo tax nag tey ñu dellu siwaat ci mbir moom parce que dañu am yaakaar ne rek ci ci éducation ñooñu buñ taxawee acteurs yooyu buñ taxawee war nañ mën a jàppale ci saafara bi ñuy jéem dem ci wàll woowu loolu waral tey jeetaayu tey daara yi cest à beddiwuñu kenn Euh, inspecteur wax na ko sànq ci waxam mu ne bu ñu bedd kenn bu ñu bàyyi kenn parce que képp kuy doomi aadama rek nag ci réew mi lii war na laa soxla lu dem ci sàmm ak ak yelefu xale yi lu dem ci euh, xale yi naka la ñuy def ba jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci jamono yi ñu toll euh, fii ak ay at ñu saafara ko ba dootu am kooku bàyyiwuñ ci kenn beneen bi encore def na li ñuy <clears throat> def nañu li ñuy naa Euh, dialogue communataire maanaam toog ak askan wi waxtaan ak ñoom askan wi nag ñi nga xam ni ñëpp ay acteurs lañ bokk ci maître euh, kii borom daara yi euh, bokk ci aussi bajanu gox yi bokk ci jigéen ñi imaam yi parce que ñooñu moom ñoo gën a am solo sax parce que xale bu judd ñoom ñoo lay tudd ci biir tudd bi war nañoo mën a fàttaliwaat waajur yi lan mooy seen warugar ci tout tànk bi soo gane àdduna te kat doom am na doole loolu am na solo moo tax ilimaan yi sax dafa loolu nañ leen formation ak chef de village yi parce que chef de village yi ñoom ñooy représenté état ci seeni dëkk donc ñoom war nañoo mën a taxaw ci mbir moomu waxtaan ak seeni population ba ku ci amati doom nga ñëw mu enregistré la toujours ci liggéey bi rek dañ ne woon fii ñu nekk Mbàkke dafa doon un département assez spécial comme ni ñu koy waxee te ndigal fi wéy te ñun ay taalibe lañ ñu ne balaa ñoo tàmbale dara dañuy dem toog waxtaan ak xalifa bi euh, mu jox ñu ndigal jox ñu ay tegtal jox ñu xalaatam ba taxoon euh, yeneen kër diine yu bari sax dem nañ fa lu war a tolloog fukki euh, kër diine bi ñu paree nag ñoo nañ ci xale bi ne ko daal lii ak lii ak lii dox nañ ko fii la mbir mi toll ñu ngi bëgg a tàmbalewaat nag mu ñaanal ñu jaajëfal ñu ba pare nag neñu da ngeen di fexe nag pour mu gën a yaatu ngeen waxtaan ak suma porte parole mooy sëñ Bass Abdou Khadre su ko defee moom mu soññ borom dëkk yi ci wàll woowu donc liggéey bi da leen koy gën a euh, yombalal rek kii boobu nag ñu ngi koy waaj ci jamono yi sëñ Bass moo xawoon na xat lool ndax magalu poroxaan bi ak Kazu bi ñuy waaj ak euh, magalu sëñ baara bi aussi mais bu loolu yëpp weesoo incha allah rabi ñu ngi jokkook euh, entourage am ba yi bu weesoo rek dañ jëm taseeg moom comité bi ak waa UNICEF yi nga xam ni aussi ñoom ñooy suñ partenaires yi nga xam ni ñoom ñoo ñuy gunge gannaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu mën li euh, def li ñuy def waaw nañ ci ànd ak aussi préfet ak inspecteur ak euh, maire Touba ak sous préfet Touba ak euh, acteurs yi daal dem toog ak sëñ bés waxtaan ak moom ci wàllu moom lu ñu mën a wax moo dañ ko rafetlu parce que bu ñu waxee état civil maire lañ wax parce que maire maire lañ jox doole mu mu joxe ay kayitu juddu ñu dëkk si gox goxaat bi comme que initiative bi comité départemental de la protection de l'enfant am na ko pour protéger élèves yi eh, ak xale yi pour ñu mën am këyit kon li ñuy wax ni mooy maire bi da koy rafet rafetlu li ñu wane aussi wane na ne liggéey bi yàgg na parce que def nañ ay conférence def nañ ay tournée def nañ ay sensibilisation rencontré nañ ay xalifa diine yu mag yoo xam ne wax nañ si mbir bi donc ñi groupement féminin yi formé nañ leen forme nañ délégué de quartier loolu mooy wane ne. commité départemental liggéey bi nga xam ne mi ngi ko taxaw pour que déficit boobu mu bari am mi ngi koy def kon li ma jàpp mooy maire bi lu war a def mooy accompagner ko te si loolu lañ nekk mooy fexe ba ku am doom boo ko déclaré ñu jox la kayit du ñu am foofu fexe xalaat que fi nga xam ne fa lay xale yi juddoo ñu def bureau point état civil judd rek ñu transcrire la directement ñu mën a remonter information yi de telle sorte boobaa danañ dem ba en un moment problème dootul am yooyu yëpp ay pexe la. ba pare aussi ñu accentuer ko fexe boo niveau des conseils municipal ñu expliquer conseil aussi porter la voix sensibiliser nit ñi rajo yi ñuy wax tout un ensemble d' action pour wax ne mbir bi daal du mbiru mairie kese mbiru collectivité bi la ak partenaire bu nekk yéen journalistes yi am ngeen rôle bu important bi nga xam ne yéen ko si joué de telle sorte que lool mën nañ dem ba dootul amati problème. lool la loolu bu ñu ko defee jafe-jafe day jeex parce que élève bu judd ñu déclaré da nga am kayit am na ñoo xam ne peut être seen registre dafa leeroon mais tey bu ñu amee ay kayit yu méngoo loolu mooy seen diplôme bu ñëwee mais dañ leen reconsidérer directement de ce benn changement du si am. ñi nga xam ne nag amuñu benn pièce ñi xalaat waxtaan ak gouverneur moo nga xam ne mooy war a présider comité commité commission de de reconstruction des pièces de telle bu ñu wootee na leen ba ñëpp ñu yoroon kayit ñu am ko mën a délibérément nekk ay citoyens tout ça donc loolu dara fexe ba jafe-jafe kii dootu amal si département bi donc vraiment loolu mooy taxawaay mi quoi donc di remercier aussi préfet monsieur Amine Diop si, en tant que président du comité départemental de la protection de l'enfant, ainsi que Tiendel qui en est le secrétaire, secrétaire général, et monsieur l'inspecteur qui en est le poumon, puisque vraiment, nous, en tant que directeur d'école, nous pouvons avoir un rôle important bi que nous devons jouer. Nous sensibiliser les élèves, nous aussi nous jouer le rôle d'information. Faire que les parents nous disent, attirer attention, c'est important que tu dis. Donc, CGI, moi, comité de gestion bi yéen ak école yi yooyu yëpp dana fexe ak groupement féminin yi accompagner en tout cas liggéey bi liggéeyu ñëpp la fexe ba vraiment nit ku war a am kayitu juddu nga man ko anoon a am am sa carte am sa passeport fépp foo mën a dem nga dem fa